def dara. am ngeen droit ñëw seetaan si na ku nekk ñëw seetaan si. loolu wax na ko. alors mu nekk loo xam ni euh, mën na lu lu ñu mën a apprécier la. parce que xëy na mënoon na wax leneen wala nangam. ban xalaat nga am ci loolu nga xam ni itam wax na ko wala loolu da nga may wax dégguloo ko aussi. kaddu Ousmane ah, Sonko. non procès xam nañ ne suba la. waaw ah, d'accord mais li mu wax aussi. li mu wax euh, bi ñu dans ci salle d'attente bi euh, kii ñu responsable de la communication mais ma koy d'accord mais mais xam nga gis nga Ousmane Sonko. Mhm. au-delà de son courage au-delà de son endurance de sa pugnacité et de son engagement pour le Sénégal a am chance la. Mhm. mën naa ne ci homme politique yi au Sénégal y ci ëpp chance. Mhm. nga a ci opposition. Le président de la eh, kon kay def leen ko candidat rek. mais ma ma ñëw. moo ci ëpp chance kay yéen ñëpp leen ëpp chance mais di nga <laughs> comprendre non boo ma bàyyiwul fu may fu ma bu ma daaneelulee. homme politique yi fi nekk yëpp moo ci ëpp chance. <sighs> moo ci ëpp chance loolu la yàlla dogal. nga am leader. chance boobu nga am leader politique yow. chance bi nga jël ko teg fële nga Ousmane moo ko ëpp chance. kon kay def leen ko seen candidat benn yoon. chance bi naka nga koy expliquer boo ma déclarer rek di nga comprendre chance bi fan la tegu. ok dafa am chance loolu parce que président de la république bu ba transformé wu directeur de communication nex directeur de massification qui ban opposant Bob lan lay chance pour am nañ hmm. Moustapha

Ah, et Dante a une chance pour gagner aussi, hein. ça, je le dis aussi. Mm a a chance pour gagner. Comme ni Moussa Moussafa a une chance pour gagner. Comme ni Khalifa Salah a une chance pour gagner. Comme ni a une chance pour gagner. Comme ni Sohna a une chance pour gagner. Comme ni Lideri Neti Coalition et Askam a une chance pour gagner. Mes chances, c'est moi, je dis. Yo, opposant. Président de la République transformé ou directeur de communication, directeur de communication. Dis les ligues. Les def sous ci sa dafay def sa promotion lorsque koy opposition le rêve, opposant nous le lu lu lu toll chance foofu la chance bi foofu la ko mhm. d'accord Macky Sall euh, lépp lu muy def bu yeewoo suba ba ngoon nu muy nou muy nou muy nou muy lu muy liggéey la Serigne euh, euh, Ousmane Sonko ci loolu lay def te it loolu lay def ci Serigne Moustapha Macky Sall depuis mu ñew ci nguur gi depuis 2012 amul lu mu deful Serigne Moustapha en termes de provocation Serigne Moustapha wax na ko ci mawlid bi passé dem na fi Maroc mhm. ñu bloqué passeport am ci passeport bo xamné ni état bi moko ko jox téye ko fa Lolu jàddu na ci kilifa mhm. Wa Maroc ci sen bop, mili euh, police Maroc ci sen bop wax instruction bi jógewul ci ñom ci Sénégal la jóge Lolu rafet na Mom mhm. lolu la nekkee ci nguur gi Macky Sall waaye lolu duñu xam nga mané duñu Macky Sall ba mu yegsee 2012 dafa poser ñetti acte yo xamante ni fiñu tollu ni mënul nek leneen luddul fiñu tollu dañuy wax ne mënulo tek sombi yàq ceebu jën mënul nek bo tégué sombi sombi rek nga yàq ceebu jën nak boko tégué ci ceebu jën nga yak Macky Sall bu mu lan jëk def dafa ñëw réduire l'opposition à sa plus simple expression